asalaamaaleykum mbokki wa Tivaouane tay nak euh, ñun wa PASTEF ñoo invité woon opposition bi di def ben déclaration motax tay ngeen gis wa gëm sa bop nek fi and ak ñun fi pour ñu def déclaration bi nga xamni tay dafa jëm ci élection locale yi ndaxte bu ñu xoolee bi nga xam ni ci la lii di list électorale yi ñu ubbi ko pour nit ñi mën cee inscrire ci samedi fanweeri fan ak benn ci waa weeru juillet depuis boobu dañu gis ni ca polisu Tivaouane li nga xam ni moo doon fiche yi ñuy inscrire dafa manqué woon topp nañu nag diir bu yàgg waaye bi ñu demee ba le 23 août ci la fiche si soog a disponible ñuy commencé di recevoir citoyens yi avant app boobu képp ku ñëwoon dañ la doon wax nga ñibbi ñu yaakaar ni loolu nag lu doy waar la ndaxte liste électorale yi ñëpp xam nañu ni app bi dafa gàtt et administration bi nga xam ni moo war a yombalal citoyen yi lépp loo xam ne nii dañoo war a am inscrire ci liste électorale yi moom mooy indi jafe-jafe yooyu waaye depuis 23 août boobu ñii ñu tuddee primo votant maanaam ñi nga xam ni ñoom ñi ngi soog a dugg ci liste électorale yi yaakaaroon nañu ni foofu la seen coono di jeexe waaye tey coono yi ñuy dund tay la gëna metti tay la gëna a tar ndaxte il faut que nga ñëw 4 heures du matin pour bindu pour ñu mën laa jël te bo bindo bu maté juroom fukki nit dañuy arrêté liste bi bari na ci ño xamni dañuy ñëw 6 heures du matin wala 5 heures du matin dañ leen di dàqaat amna sax ño xamni ni dañoo jugee. ci dëkk yi nga xam ni moom moo wër Tivaouane parce que commissariat Tivaouane la ñuy defaree département bi yépp fi la defaree seen carte d'identité ñooñu dañuy obligé fanaan Tivaouane am na ñoo xam ne dañ fi def ñetti fan loolu nag ñun ñu jàpp ni du lenn lu dul découragé loo ñi nga xam ni ñoom ñoo war a inscrire ci liste électorale te ñu njort ni commissariat Tivaouane bu fekkee nit Macky Sall président de la république dafa jafeel mbind mi yokk si ni il faut que nga am carte d'identité ñoom aussi dañoo gën a tey indi li nga xam ni moom mooy coono ci mbir moom moo tax ñuy woo commissaire bi di ko wax ni ko mu gën a farlu mu gën a am taxawaay ndax élection dafa nekk loo xam ni tey dëkk yu bari bu ñu yëngoo moo leen yëngal donc ñun artu bi ñu def pour wax ko ni ko élection yi dañ cee war a dem ñépp war a mën a nangu niñ ko organiser waaye waruñu cee dem ci condition yoo xam ni tey dañuy boddi ay citoyen loo xam ni seen droit de vote la mu doon droit boo xam ni ak ak yelleef boo xam ni moom lañ tuddee droit fondamental ñi ngi nag woo population bi yépp ni leen loolu bu mu leen tax a tàyyi bu mu leen tax a sonn ndaxte élection yi dafa am solo dafa am solo ñaari yoon bu njëkk bi mooy ñi nekk ci Tivaouane fii depuis juróom-ñetti at lajj-lajj goo xam ni ci domaine boo jël ña nga ca yaafus occasion la tey pour population Tivaouane wan leen ni leen ñooñu dañ leen di jël sànni leen fële ni bëñ buy metti waaye aussi occasion la pour képp koo xam ni citoyen sénégalais nga nga xam ni président Macky Sall élection yi da koo ñor te mu yaakaar ni ñi ko fi taxawal fii ci dëkk bi ñooñu bu ñu fexee ba jël ndam li moom dina fëgg dënam yaakaar ni ba léegi moom mu ngi am li nga wax li ñuy wax benn popularité ba mën a xelam nekk ci troisième candidature moo tax tey élection yi ñun ko référendum oui ou non pour un troisième mandat population Tivaouane dañoo wara a taxaw gis nañu difficulté yi ñi dund mënn mi gis nañ ko amul fumu laalu ay at mi ngi ni ñom dund condition yu élection yi à ce que ñom ñu def le choix pour génn ci situation yu metti yi ñi ngi massawu ñépp ñi nga xam ni ñi ngi dund ci ndox mi te di leen wax ni ñi ngi seen wet te fan yi dinañu ñëw seet si leen ñoom ñépp di wax nag loolu dañuy yaakaar ni mbirum yàlla la déedéet loolu ñi ñu jiite ñooñu ko teg ndaxte seen télé moo tax amuñu gis-gis ci dëkk bi seen télé moo tax mënuñoo def ay canalisation jaan ci mbeng la jam defe naa ni duñ ci dellusi bu ñu jëlee kaa bu mel ni kuli ñu gis mu jël suñu xaalis def ko ci loo xam ne yëfi tappale la tey boo demee waa kuli tey lañu ñu gën a dund ci biir ndox mi boo demee quartier bu mel ni tey fi nga xam ne ñu ngi koy wax jidda tey la ñu gën a mën a dund ci ndox mi boo demee kër xaali tey la ñu gën a mën a dund ci ndox mi ak yeneen i quartier yu bari waaye waxuñu la foofu sax fi nga xam ni dafa wër jàkka yi ak jumaa yi sax dafay taa ba ci buntu meereem loolu nag wane na ni moom Diagne si mbeng amul gis-gis ci dëkk bi moom Diagne Sy Mbengue deuxième conseil li ñuy wax euh, euh, deuxième euh, secretaire municipal la yaakaar na ni maire yi signé ay kayit rek la donc ki amul vision amul gis-gis ci dëkk bi kooku nag dañ ko war a jël rek sànni ko ci biti teg fi ñeneen ñu gën a compétent waaye teg fi ñeneen warul tax ñuy soisir ñi nga xam ni ñoom jaañ si mbeng ñoo bokk clan ndax ñooñu gis nañ leen ñu dugg ci gox-goxaan yi dem di pomper ndox mi te ñoom bokk nañu ci ñi créer loolu ndax ñoo mekk Macky Sall ak jaañ si mbeng ñoo bokk langue waaye xam nañu fi mu toll citoyen yi sonn nañu ñu leen di jafal li nga xam ni moom mooy fausse solution maanaam pomper ndox mi pour que dewen ñu dundaat ci ñun nak dañ leen di wax ni leen ñoñu ñew di leen jox xaliss ñoñu ñew di pomper ndox mi dañoo bok ci système bi nga xamni ñom ñoom ñoo tax ndox ma nek fa parce que xaliss bobu ñu leen di jox parce que loolu nga xamni ne ni moom la ñuy ñëw géré citoyens mom lañu la ñu ay canalisation ba nga xamni tay tey citoyen sénégalais fo nek di nga nek ci environnement bu sain motax ñu leen di wo di leen wax dem leen bindu ji dem leen bindu ji

Donc nous, le parti Pasteur, en collaboration avec euh, certains partis politiques et mouvements appartenant à l'opposition, particulièrement le, parti, le mouvement Gumsobob, sommes là aujourd'hui pour euh, faire une dénonciation concernant les lenteurs sur les listes, euh, sur l'inscription, sur les listes électorales aussi l'obtention de la carte d'identité nationale. Donc, euh, depuis le démarrage de la révision exceptionnelle <coughs> sur les listes électorales le, samedi 31 euh, juillet, en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, on constate une lenteur suspecte de la police dans les opérations d'instruction de la carte d'identité biométrique CREAO pour les primo-votants. <clears throat> Pendant la première semaine, tous ceux qui étaient venus chercher une carte d'identité ont été euh, éconduits sous prétexte que les fiches d'identification étaient en rupture de stock. Ce n'est que le lundi 23 août qu'ils ont commencé à recevoir les citoyens, ce qui est inadmissible pour une administration devant gérer dans un délai réduit, l'enrôlement des citoyens pour l'accomplissement de leur droit de vote, un droit qui est fondamental Tout juste sorti de cette situation, les primo-votants vivent un vrai calvaire à la police de Tuan. Certains se lèvent à 4 heures du matin même pour s'inscrire sur les listes et la police ne prend que 50 personnes par jour. Les autres sont renvoyés à un autre jour. Ceux qui viennent des communes environnantes sont obligés de passer la nuit à Théon, voire même faire trois jours pour euh, faire partie de la liste journalière de 50 personnes. Nous dénonçons ces pratiques qui visent à décourager les citoyens sénégalais à obtenir la carte nationale d'identité, en plus de la conditionnalité de, la présentation d'une carte biométrique CDAO imposée aux primo-votants. Donc pour euh, s'inscrire sur les listes électorales par le président Macky Sall relatif au démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales, la police de Tuawan soumet aux citoyens à un véritable marathon. Donc le commissaire de Tuawan doit prendre cette question avec beaucoup de rigueur même, faciliter les ayants droit l'accès à la carte d'identité nationale pour une bonne organisation des élections dans un climat social et apaisé. Nous demandons, demandons du moins à la, aux populations tivavanoises d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour sanctionner la gestion scandaleuse du maire de Tuan ainsi que de tous ceux qui appartiennent à la coalition Benoît Bokuyaka. Nous compatissons aussi avec ces populations et sommes à leur côté pour leur apporter un réconfort. Euh, le maire de Tuan, en l'occurrence Dian et son équipe municipale font des inondations au fond de commerce en octroyant des travaux de drainage des, euh, à, des travaux de démarrage des eaux de pluie à des amateurs. Donc, le point bas de coulis continue d'être envahi par les eaux. Euh, pourtant, euh, pourtant Djansimbeng y a englouti une somme d'argent colossale pour une fausse solution. Les quartiers Kouli, Kerkhali, Djida, Kondiaka, patauge toujours dans les eaux. Euh, même la devanture de la mer, n'est pas épargnée et les alentours de l'esplanade des mosquées. Au lieu d'apporter des solutions aux inondations et euh, soulager les populations, le maire sans vision ni ambition pour la ville s'en prend aux médias qui montrent la situation déplorable de la commune occupée par les eaux pluviales. La gestion des inondations exige une vision <clears throat> pour une solution durable. Malheureusement, les vendeurs d'illusions profitent de cette situation de vulnérabilité des populations à travers un pompage des eaux tape à l'œil pour tenter vainement de convaincre l'électorat. Les populations ont la solution de cette situation qui dure et perdure depuis des années c'est d'aller s'inscrire dans les listes électorales, non pas pour se débarrasser des inondations, mais de ceux qui les ont mis dans cette situation. Donc, euh, merci de votre attention.